doxalin yu ñaaw yi nga xam ne yenn cay réew ñoo ngi koy def nañu ko teg ci suufa ma ngi ci yéen gi di réew mi quotidien Assane xëy di ko naqarlu nee na déndu Afrique ñoom nag dañuy xaar ba réew yu am doole yi séddu ba doyal doogu leen a jox li nga xam ne mooy deset wi yéen kaay gi di enquête moom tim xëy di ko dëggal yéen kaay gi di le quotidien yóbbu ñu diwaanu Ziguinchor nee na foofee lu jëm ci wàllu mesure barrière yi askan wa nga xam ne ñoo fay yeewoo ba fu bàyyeeku yam ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci lu jëm koor tax na nag transporteurs yi nekk cay jafe-jafe yu métte métti yéen kaay gi l'observateur nee na woppi coronavirus ak ni nga xam ne moom lay lawee ci réew mi xalif généraux yi moo xam Tuuba la moo xam Tiwaawoon la ak ki nga xam ne moo jiite église bi amul benn yoon boo xam ne kafe nañ wala ñuy fowee li nga xam ne mooy woppi coronavirus maanaam seeni matukaay la ñu jël ba mu mat sëkk yéen kaay gi di Walf Fadjri mu ñu xamal laan ñu étudiants yi nga xam ne ñoo nekk ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru jamono ji njàqare ak tiis moo ba maara day taali la ko waral coronavirus ji ni nga xam ne moom lay jaaba jonge ca université yéenekaay gi di réew mi quotidien nee na en tout cas li am ba desal ñi nga xam ne ñooy faatu ci woppi coronavirus ci Sénégal bëri na lool jamono ji Sénégal yegg na sa juróom benn téeméeri nit ñoo xam ne ñàkk nañu ci seen bakkan yéenekaay gi di li quotidien nee na ñi nga xam ne ñoo amee coronavirus te tëdd ci lali hôpitaux yi ñoom sax bu weesoo corona bi dañoo tiit ndax bëri na ay hôpitaux yoo xam ne amuñu oxygène boo xam ne mën nañ di leen ko takkal ñu koy noyyee kaay gi nee na woppi coronavirus ma ngi def dara jërul ci réew mi ndax am na benn famille boo xam ne ñetti nit la fa woppi coronavirus ja tëral yéen a kaay gi de Dakar Times bàyyi mbir moomee wax ci état bu Sénégal ak ñàkku xaalis gi nga xam ne ñàkku ko xaalis moo tax jamono ji Sénégal dafa yëkkati ay emprunt obligataire Sénégal ma ngi àbb lu toll si juróom-ñaar fukk ak juróom ci ay milliards te jamono joojee kër gii di ICS amel na senegal lu toll ci deux cent douze milliards yéen a kaay gi de L'As xëy ci xaalis bi nga xam ne Boubacar Seye waxoon na ne waaye Union européenne dañ ko jox réewum Sénégal ngir ñu lijjanti lu jëm ci wàllum émigration clandestine niki dem bu réew mi di président Macky Sall daan nay wax ñu andil ko ci ay leeral nee nañu càmbaral ko ko defal ko ci ay rapport waaye tamit nañu ko defal ab rapport boo xam ne jëm na ci emploi des jeunes yéen kay gi de la turbi nee woon coow li jamono ji dafa feebar ba maara détaillé mboolem loo xam ne lekk na ko daf koy wàccuwaat dafa jeex tàkk mentalement physiquement Boubacar Seye jamono ji dafa tàggoo ak sagoom yéen kay gi di réew mi quotidien ñu xëy fekk fa Mamadou Ndione mi nga xam ne mooy directeur général bu COSEC nee ci mairie bu Diass wax na tamit ne politiquement socialement maanaam yanu na maanaa loola mu samp ndëndam ci gox bii di Diass ba tey moom Mamadou Ndione daan wax ci réalisation yi nga xam ne def na ko ci COSEC atum 2017 ba ñu ko fa tabbee ak léegi wax na ci grand projet yi nga xam ne mooy COSEC waaye tamit daan nay wax ne COSEC ci 14 régions yëpp COSEC ma nga faa di def ab liggéeyam ndax lépp loo xam ne jëm na ci wàllum défendre askanu Sénégal importateurs yi ak exportateurs yi ñoom waa COSEC ñoo ngi koy defa yéen a kaay gi di Sud Quotidien xëy ñu yóbbu Casamance nee ñi nga xam ne ñooy armée bi jamono ji dugg nañ ca àllub ba ngir di ko nettoyé yéen kaay gii di laas nee na armée sénégalaise bi ma ngi def lu dara jërul ñi nga xam ne ñooy rebelle yi yéen kaay gii di Sud Quotidien na ko ma bi nga xam ne moo nekk ci Casamance mooy Boffa di Bilaas di Mbisaan foofee fépp ay opération jamono ji la fa waa armée bi di def yéen kaay gii di Direct News ñu xëy fekk fa Dambo Ca mi nga xam ne moo jiite syndicat bi du CUSEMS authentique daan nay xëy ki nga xam ne mooy Diary Sow Dambo Ca nee na Diary Sow bindut lettre bi nga xam ne moom ngeen di lire ngeen jàpp ne Diary Sow moo ko bind du moom moo ko bind moom Dame daat nay wax ne concours général 2018 Diary Sow jëlu ko te loolu lépp yëfi Serigne Mbaye Thiam la moo def ay dëbbal dëbbal yéen kaay gii de la Tribune nee na en tout cas li am ba des daal mooy Diary Sow andi nañ ko Sénégal ndax ay mbokkam ñoo ko doon laajte ñenn ci mbokki Diary Sow dañoo jàpp ne seen doom jooje dañu ko def ay yëf yëfaan maanaam dañu ko misik l moo tax ak njabootam jàpp ne ñoom tim war nañu ko mën a defal ay dëbbal dëbbal yéen kaay gii du source li nga xamante ni mooy xeeñ